waaw kon kon sant yàlla gars yi am na ñu fi def trois mois am ñu fi def quatre mois mënuñoo dugg waaw ah, kon ah, santal waaw santal santal santal gars yi ngi tapote de gars yi ngi tapote. Salo man dama bëgg luy biir dama bëgg luy yi sànni ay ndax Ousmane.

def na fi ay at. Ousmane am na de def na fi ay at la fi def moom bii di yaay euh, xaw nu mu tuddati saxati. lay ah, yàgg na fi ah mi ngi nii ah, ma xalaat ko ma ñaar ko rek. Ah, waaw waaw allo. ah ñëwaat. waaw waaw jëlaat nañ la jëlaat naa la jëlaat naa la <laughs> jëlaat naa la comme da nga fay yàgg moom moom moom moom mënu ma woon a jëlaat keneen tant que jëluma la <laughs> ndeysaan aja tur bi nan la ak ati fu mu toll waaw yaa ngi biir yaa ngi biir yegg si nga bu yàgg waaw ok euh, nan nan nga ne allo Ndeye Gueye mii de ah Ndeye Gueye la ndéggéey cey ndéggéey ndéggéey mi mbaa jàmm la ndéggéey ndéggéey waaw ndéggéey ñaataat ah trente et un ans asalaamaaleykum Ndeye Guèye Ndiora Gassou ah 31 ok ñu ngi lay ziar Ndeye Guèye <coughs> maa ngi lay nuyu bu baax a baax borom 31 ans euh, soxna Ndeye Gueye seet ne la di nga ree di nga kontaan di nga am ndam dégg nga. Ah waaw. neen di nga wut bu ñuul ñetti mètre bu weex ñetti mètre bu ñuul ñetti mètre popeline nga saraxe ko mais def ko jigéen boo ko joxee yàlla dinaa taxaw yàlla dina la dimbali nit ëpp la wërsëg mais wërsëg bi day yàqu sa loxo rek lu ñëw dem. nee na wërsëg bi du toog benn place lu ñëw day génnaat sa loxo ba yenn saa yi mu tëj sa bopp. set nee na ku am fugg nga mais doo téye lu ñëw rek mën nga tenir. lu ñëw mën nga tenir mais nit mën na la làmbaatu nag mais ku la làmb nag ndax seddoo <laughs> nee na seddoo ku la làmb daj la set delluwaat ba tey ne del faral di saraxe pepp pepp day ko génne lu mel ne lu mel ne dugub day ko wut soo ko jëlee nga ñaan si yàlla si soxla nga saraxe ko mais dem ko joxal góor. nee na da ngeen jig jigéen moo tax del jox góor sa sarax ah, ne ah, ah, nee na yenn saa yi da faral di gis rabu àll da nga koy faral di gis si sa gént lu baree bare mais saa yoo ko génte jàppal alal day ñëw mais alal di du toog lu ñëw di dem na te ndey da nga war a am lu toog ndaxte bi nga def sa bébét ak sa projet dafa bari mais mënu koo fexe ba entamé benn benn benn te xamoo lan moo ko waral ndey mais nit pour mu dem tudd sa tur ci sëriñ buy ñibbi du ko fekkee nit pour mu jàppale ci gàllaaj yombul nee na mu taxawaat bopp bi day faral di méttee côté mm. looy dugg mën na xaw la nga mais boo dee dalal sa xel yàlla dina la dimbali ndey mais fit bi toogul ndey gay moo moytu ne di nga di nga nekk ci sëy génn ci duggaat ci loolu la yàlla di dogal ci yow yaa ngi dégg mais soosu ginaar mm. ndey gay mm. bi day làmbaat day dem ñëwaat bi mm-hmm. day dégg ndey duggaat ci sëy nee na dugg ci say gé nee na dangay nekk ci say génn ci mais di nga duggaat ci say mais jàppal lépp ndogalu yàlla la bi ñëwaat mooy dàq bi romb nee na mu taxawal mbég taxawal sant yàlla génneel ma fruit wi banaana pomme orange raisin nga boole koog raisin danga mosoo nekk ci say génn ci <laughs> nee na uh-huh. waaw nee deuxième bi dina neex lool mais say kujje lay dugal waaye fit moo la fay bàyyi ndaxte ki ngay fekk day doon gaynde nee na mu taxawalaat ba tey cet mën na la sonal mais dina baax nday gay jënd jaay day ci nekk rek te jàpp ne dina baax te nga dafay am mais yàlla dina taxaw defal la jàmm dégg nga yaa ngi dégg ndey waaw nee na mu taxawal de dalal sa xel te nga wut jaaru tànk nga di koy takk sa tànk yi day fër rek sa tànk yi ma ne lu mu romb da koy da faaw mbëkk ko tànk yi moo am problème mais de jëlal jaar jaaro moo xam ne ñetti kuloon nga takk ko sa baar jaaraam baaraam bi yàlla dina la dimbali dina la taxaw ba loo sumbati ak loo doxati yàlla dina def mu sotti Ousmane. Mhm. nday waxtaan bu yàgg jëlal keneen. ayca nday nday da ngay jël numéro bi comme ça après nga nga woote ci dégg nga ah. nga waaw gaa yi aussi tamit il faut ñu xam ni euh, fii nii dañ lay musal rek. parce que ñi bëgg dugg ñëpp dañuy bari. Mhm. donc bu nu ñamee dañuy may ñeneen ñam. Mhm. waaw xam nga saafara bu ko ñëpp bokkee. Mhm. ku ne da ngay raay jox sa moroomu raay. am déet waaw da am solo waaw li ci des nag mën nañ koo àggale ci ci téléphone bi. waa képp ku mu yitteel rek après da ngay jël numéro téléphone bi 77. voilà 060 43 10 foofu tax mooy dàq waaye fii dañuy bëgg ku ne rek nga mos. waaw salaamaaleykum. ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. maa mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah tur la ak ati fu mu tollu allo waaw tur bi nan la ati fu mu toll. ah. Marème Ba Ba pour le jéeri sa sant wu naqare wi. <laughs> santu xale la. boo xam nga naari baa ngay sant gars yi ñaata kilo mburu yow kii dëgg dëggal ko ay kilo mburu yu bare bare bare mu génne ko ay sarax. kay Ousmane mooy mbal du ko lekk. moo ñi sant ba lii ak ñoo bëgg lekk Mariama ñaataat nga am. moo baax na 27 ans ay ci Mariam ba 27 ans. Bapulo borom 27 ans. wutal 20 bekk suukar 27 ans bekk suukar. nga def ko ci mbuus mais ñaan sa soxla nga saraxe ko joxal ma ko góor nee na boo ko defee yàlla dina la dimbali marem boo góor góor sa wàllu dund ak sa wàllu toogaay da ngay jàpp yoon dem tugal dem bitim réew dem dëkk tubaab nee na sa wërsëg nekk na fa nee boo góor góor la dem dëkk tubaab te foofu la sa avenir di gën di doxee ko Sénégal yaa ngi dégg nee na wërsëg buy ñëw mais taxawul seet nee na buy ñëw mais taxawul nee na nga dalal sa xel mm-hmm. te xam ne di nga am jàmm di nga kontaan ndam di nga ko am mais naawalal ma ay picc lim bu tolloog 27 nga bàyyi ko mu naaw am doom bu góor ko ca taawloo mais sa sëy ci dina bari coow bari ñu ciy wax neen di bari ñu koy takk day am coow buñ ko takkee ba fa dina am coow ba nga xam dina tëj sa bopp dina la jaaxal mais ci kàttanu suñu borom del bàyyi dox tamit boo ko moytandikoo rek sëy boo nekk di ci toog te yàlla mën na la dimbali gën a la jubóoleeg sa borom kër mais ay seex di nga leen am di nga mës ay seex ma incha allah di nga mës a ay seex mais lépp taw féex la. seet nee itam ndam beeg sant yàlla neen danga doon jàng jàng bi demeetul noonu de Marème. neen njàng mi dexatul dematul ni mu war a demee ba yenn saay sa bopp di ci tëju yenn saay nga mel ku ci toogee ñaari xel mais jàmm mbég sant yàlla seet nee na nga dalal sa xel nee na biir bi yenn saay day faral di metti règle bi du normal ma ren neen sa sixième sens nag du la nax neen sa sixième sens du la ndax looy laam-laame ndax am na bala amul day am te yàlla dina la ci wan leer yàlla incha allah dina la ci gën a ibbil sa wàllu wërsëg dégg nga nee ngay faral di togg laax mais laax bi soow piir lañ koy jafaayee mm-hmm. bu ko xale yi lekkee ba pare raxasu bi jël ci nga toqal ko ci siiw nga sangoo ko boo ko defee at mii weer bi weer bi ñu ci nekk mm-hmm. kii fëgg dina ëbbi incha sa bunt mu taxawal mu nekk sëy bu neex bu ànd ak teraanga guddi dooy nelaw say nelaw day xaw a wàññeeku ba yenn say sa bopp day tëj mën ngay nelaw ba mu yàgg mel ni dañ da nga am lu rëy lu rëy tiital nee mu taxoon affaire seytaane bëtu guddi saay-saay dañ lay topp ngelaw garabu ngelaw garabu seytaane boo ko deful mën nga ne ba mu lay tëral ndax tey nga feebar suba yaram bi mel ne nga xaw a sutante say mbir noonu lay demee waaw tey nga feebar suba yaram bi xaw a taxaw tuuti nee na jàppal ne am na lu nekk sa wàllu yaram loo xam ne mu ci dox am na loo xam ne mu lay sonal ma boo paree jël ma ci suuf ma wax la lan ngay def pour loolu daal di deñ boo ko defee di tëdd feebar te gën ay ci jëlal numéro bi après nga woote ci bu ko defee ginnaaw ah. euh, ginnaaw waxtaan wi nga woote dégg nga ah. incha allah jërëjëf merci beaucoup jërëjëf allo. aleykum salaam. waaw ngi lay siyaare soxna si. yàlla yàlla ci jàmm. maa ngi ah alhamdulilah tur la. tur bi awa Mbacke la. ah ah Mbacke Balla Aïssa ñu ngi lay siyaare Mbacke. yàlla yàlla nangu ziar. Balla Aïssa ak Buri Serigne Mbacke ak ñu ngi lay siyaare bu baax baax baax baax baax a baax. naka tawféex yi. ñu ngi alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah at yi fu mu toll. 42 mhm. ans. 42 ans ay ci jëlal na def. yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. waaw maa ngi sant maa ngi soxna si li njëkk a teew sa wàllu seet mooy yaram bu suutante yaram bi neexul nee sa yaram neexul yaram bi day diis. Mhm. da nga xaw a feebar nee na ngelaw dafa nekk sa yaram mais cat moo fees del sa yaram dañ la yàgg di def ay ñaan yàgg di lay liggéey di lay booleeg ay saytaane moo taxit awa jógal si sa wàllu yaram te nga faj rab sa yaram rab yi daf la xew sonal daf yàqal mbakki bal nee na rab daf lay sonal te lay yàqal mu ëpp lim lay defal génne ma treize pot sardine nga saraxel ma ko joxal ma ko jigéen benn nit nga koy jox boo ko joxee di nga am jàmm di nga am ndam te di nga am salaam mais yaram bi dafa naqari loolu ma seet di déedéet sànq ba tey leen nga taxaw si sa wàllu yaram liggéey boo xam ne dafa nekk sa soxna awa awa da mësoon dugg ci say génn ci ah sëy ah? bi ba tey euh, sëy bi bu fekkee yaa ngi ci sëy bi day tas ndax sëy bi neexul dafa bari ay coow sëy bi neexul dafa am ay problème soxna awa sëy boo xam ne dafa am ay problème mais problème yëpp li ma ci gis mooy def def la cee am ci wàllu xaatim wàllu def def boo xam ne dañ koy def def ko ci neefare dangay wut satala boo wutul treize satala nga wut ko ko mais joxe ko ci daara boo ko joxewut ci daara sa sëy bi day randu sa sëy bi day yàqu nee na boo ko joxee ci daara ñaan si yàlla sa soxla yàlla taxawu la ci ndax amoon na ay wax fan yee nee na ba tëjoon na sa bopp jaaxal na la nee na mbirum njaboot na say njaboot góor ñee nar a ëpp jigéen ñi ne na nga dalal sa xel ndax sa njaboot bariwul noonu am mbàkke bàlla mais seet neen sa njaboot bariwul mais dina barkeel ci kàttan suñu mm-hmm. borom yàlla dina la defal jàmm te yàlla dina la taxaw mais mbaax mu normalul sa naq bi di faral di diis mbaax mi normalul yenn saa yi mën nga mel ne kuy miir sa yaram di diis génnal ma litre diw ñor nga saraxeel ma ko joxal ma ko góor boo ko defee dina baax boo ko defee di nga am jàmm man maa la ko wax fii ci laaj bi tey sa sëy bi boo ci jógul day tas tas bu la bett soxna si seet na di nga jàpp yoon dem bitim réew neen di nga dem bitim réew nee na ngay faju faju tubaab fekk du faju tubaab moom nga war a def faju olof moom nga a def soxna si Mbàkke mm-hmm. nee na mu taxawal jaam mu taxawal ndam mais 9 kilo pain def ci chocolat nga saraxe mais jox ko ay xale jour alterné nga koy def mais wàllu mm-hmm. sa am da ngay wut sekku nekk ci kaaf nga ko jox ko xale xale bu góor boo xamante ne am na 15 ans jàpp 17 ans moom ah. yàlla di lay dimbali yàlla di taxaw yàlla di ibbi sa wërsëg yàlla di lay musal ci ndox musal ci gàllankoor musal itam ci musiba ak cat mbàkki bàll mais sa wàllu yaram dina wér dina wér te di nga tane génneel ma percal 15 mètres percal nga saraxe ko mais defee ko ci morgue incha allah boo ko defee lépp lu nekkoon ci yow jigéen dina la tiim ñu la baal ma ak fekk moom moo la doon liggéey mbàkki bàll di nga jiite nag mbooloo mbooloo mu bari mais damay gis am na ñoo xam ne mbooloo li nga nekk dina ci soxoree dañ lay xeex mais sa sëy bi dafa bari ay xeex bari ñu koy ah, bàyyi xel ah, mbàkke mais dina baax di nga kontaan dégg nga te di toog ba sant yàlla incha allahu rabbi dégg nga amal jàmm te dund baax merci awa aje jërëjëf jërëjëf mbàkke jaajëfati après nga jël numéro bi nga woote dégg nga ok jërëjëf merci beaucoup mi ngi noonu après ma ngeen jël numéro bi ci 77 060 43 10 77 060 43 10 ah ci ñu xool keneen euh, jërëjëf balak maaram ay sak Sadio. <laughs> tapote leen live bi Mariama nee na Mariama nee na ngeen tapote live bi partage leen live bi salaamaaleykum soxna si na nga def mbaa yaa ngi ci jaamu ñu ngi sant alhamdulilah ça va alhamdulilah naam la ak at yi Khady Ndiaye 26 ans asalaamaaleykum Khady maa ngi lay ziar jaata mbaa yaa ngi ci jaamu mbaa defoo dara macha allah alhamdulilah macha allah Ndiaye jaata 26 euh, ans mooy at yi Euh, borom 26 ans seet nee na mu taxaw day taxaw taxawaay góor nee mu taxawaat ba tey dinga nga am ndam nee na mu taxawalaat ba tey di gudd fan mu taxawalaat ba tey di nga toog ba sant yàlla sa ndaw nag dina xaw a bari ay problème nga jóge ci lii dem ci lay jóge ci lii dem ci lay mais léppay baax wutal ma ñaari naajo ñaari naajo ngay wut nga daal dugal ci biir mbusu naajo bi ñeent fukk 200 nga jox ko jigéen nee boo ko joxee ni mu yemee mu bett ko noonu la la di ñëwee ci yow sa xéewal noonu la ko yàlla di ubbee noonu la ko yàlla di yokkee ci kàttan suñu borom te yàlla dina ko gën a ful dégg nga mu taxawaat jàmm taxawaat ndam taxawalaat mbëgg nee na gént yi faral di jaxasoo nee na di da faral di gént ba bët set mais léppay jaxasoo doo ci jàpp lu bari mais nee na dina baax di nga kontaan di nga am ndam di nga toog ba sant yàlla nee na itam yenn saa yaram bi day diis nga mel ni ko tayal wutal ndoxu géej nga di koy faral di sàngoo soxna si nekk nga nitu bët nag nekkantu bon mais bagage yi nga àndal ak jàjj yi dañ lay sonal soxna si di nga nekk ci sëy mais sëy bi dina bari war bari ay wax ñoo xam dañ lay ree di lay jàppale mais dañu dem ba ci bëri ñu taxawal tànk wor mais dañ lay soxoree ndax yaag moom yàlla day boole seeni wërsëg yàlla dafay tëppale seeni wërsëg mais soxor ak jalousie da ci am <laughs> yaa ngi dégg waaw moom la ma ne sëy bi ñoo xam ne dañ la ci jàppale dem ba mu yàgg jéem la di lay xeex sa wàllu sëy nee na ñu lay dimbali mais ah, dañuy dem ba ci biir mel ne war day taxaw nga gis yeneen façon nit yoo xam ne nekkoo woon ak ñoom gis yeneen façon nit yoo xamante ne seet ah waxal mm-hmm. nga gis yeneen façon nit yoo xamante ne liñ la doon wan commencement ak liñ la wan du benn nen dina tëj sa bopp dina jaaxal mais am na di nga am jàmm di nga nga toog ba sant yàlla mais naka defaral lim bu tolloog sa at ak sa atu borom kër boo ko defee yàlla dina leen gën a jàppale boo ko defee yàlla dina la gën a taxaw sa biir néegu sëy boo ko defee sëy bi dina samp te di ci am jaboot te yàlla dina la ci gën a taxaw te yàlla dina la yokk dégg del moytu couleur rouge nga di koy faral di sol baaxul ci yow c'est porte malheur Ousmane hmm. seetam wasaane jëlal beneen ay ci jërëjëf ñu ngi lay béggee bu baax a baax man ngaa jël numéro bi après nga woote si dégg nga hmm, ok ayca jëlal numéro bi après nga woote ci 77 060 43 10 mooy numéro bi dégg nga ah. ok boo ci wootee rek après ok jërëjëf. merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. ayca keneen na dugg ci bu muy dem ci lay jële ki allo allo moom baat dara moom it <laughs> allo. allo yooyu eh mbay mii de amul sens kii amul sens nañ xool keneen kooku amul sens nañu xool keneen jëlal numéro bi 77 la 060 43 10 77 060 43 10 ah ñu xool keneen ci ñu fi yàgg ci ñi fi yàgg nag laa wax de xuma ñi fi nekk tey ñi fi nekk depuis trois mois allo. waaw. allo salaamaaleykum. waaw ah, sëñ bi na ñu ngi sant alhamdulilah. waaleykum salaam. mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah tur la ak ati fu mu toll. Ndeye Wuli daa tudd ans. Ndeye Wuli 38 waaw Ndeye Wuli 38 ans. ok nga ne ati fu mu toll. waaw Ndeye Wuli Tine. Ndeye Wuli Tine. 38. 38 ans ok. waaw 38. aja Maria asalaamaaleykum maa ngi lay ziar. bu baax. alhamdulilah Ndeye Wuli seet nee na seet nee na borom mi bagage nga ndax doomu tuur nga. moo tax di génne soow piir nga di koy faral di def njar di koy sangu di koy saraxe ndax doon nga koo xamante ne famille bi nga bokk sa ay maam xaaj yëpp dañuy faj sa famille dafa bari ay sëriñ moo tax saa yi da ngay di gis loo xalaat yi dafay am yàlla may na la lool ci kàttan suñu borom nday wali seet na wut benn faaru mbaam nga bore ko 1850 nga sarax ko ko boo ko joxee yàlla dina la taxaw yàlla dina la dimbali wërsëg nag bari ko macha allah mais alal ju yàqu alal joo xam ne lu ñëw balay borom morom ma di koy fekk si nga gis mu yàqu nee na mu taxawal jàmm mu mbég sant yàlla mais del togg ceebu jën bu xonk nga di koy faral di saraxe ndey ndax borom bi bagage nga de dafa am lu yàlla def ci yow tamit ta nga ko nag mais incha allahu say bagage yi maam ma sa feeñu ba ngay toog di dimbali nit ci wàllu xam-xam di jàppale ay nit di wax ak ñoom ñuy def nee na mu taxawaat ba tey di nga toog ba sant yàlla mais sombi sa sarax la de ko génnee nga di koy def sarax sombi ceeb boo xam ne danga defar ba mu neex nga di koy faral di saraxe boo ko defee yàlla dimbali la yàlla taxawu la seet ne nit ëpp la wërsëg mais sa xol neexul sa xel mi dalul seet ne war bari na ci yow nee na mu taxawal xol bu rafet nga yor mu taxawalaat ba tey jigéen nga mais kilifa nga dangay nëbb sa bopp rek mais am na lu leen yàlla may. Ndeye Wally soo ma wutoo moo boo boo bëggee sa alal di ñëw di fekkante mbàqu gëlëm ngay wut nga di koy faral di weer ba moo mën nga jënd mbàqu gëlëm boobu. di koy faral di suuroo suba ngoon mais day ko booleeg liba original boo ko defee balay leen jeex. bala nga wërsëg mbàqu mbàqu gi dem ñi jaay garab garab yi fan nga dëkkee Dakar. maa ngi am na ko ñi jaay garab yi. ah. mooy côté Medina bi. waaw waaw ñooñu dañ koy am côté Medina riz six bi. waaw kay boo demee ñu jaay la mbaaxu gëlëm nga boole ko cuuraay liban def ko ci pot saa yu xëyee nga di koy suuroo suba ak ngoon. am na liggéey bu baax boo xamante ne góor dina la fa yóbbu mu taxaw teraanga ak ndam ak mbég boo xam ne dañ ko fa am ci kàttanu suñu borom dégg mu taxawal ba tey ne incha allahu rabbi say njaboot doo dund ak ñoom Sénégal ñi dañuy nekk fii ñu nekk fee ci kàttan suñu borom dégg nga nee na mu taxawalaat yoonu dañ ko am mais génneel ma aliwe xànjar moom ngay wut nga saraxu sëriñ buy bind e? xànjar la dafa am aliwe boo xamante ne dañ la ciy bindal ay xaatim di koy teg fu tàng pour soxol di tàng te bu soxol tàngee lu la neex ngay def lu la neex ngay wax mais bu deñee ci yow rek dangay dalaat nee na bokk nga sarax bi kuy boo ko defee yàlla dimbali la yàlla taxawal yàlla ibbi sa wërsëg Ousmane Seydou Tambo Sane. ayca jërëjëf mën nga jël numéro bi su ko defee après nga woote ci dégg nga. yàlla na yàlla def jàmm ci yow jërëjëf merci beaucoup euh, ñu ngi lay kontaane bu baax a baax mi ngi noonu ayca ñu xool keneen salaamaaleykum baax na nga def. Ousmane. maa ngi lay siyaare bu baax. naka tawféex yi. waaw maa ngi delloo ziar. jaajëfati la ak ati fu mu toll. jërëjëf Abdoulaye Diallo 42 ans. Abdoulaye Diallo 42 ans Diallo Jéeri tukulóor neex na de waaw. man fan yii li ma jaaxal laaj ans ah, Abdoulaye. aja 42 salaamaaleykum Abdoulaye. Mm-hmm. kan Diallo Bourou Séréer na nga def. waaw yaa ngi ci jàmm. waaw alhamdulilah. alhamdulilah sëñ Abdoulaye mbaxana sa sarax la bone bu weex wut ci ñaar nga saraxe ko dégg nga jox ko kilifa. nee nga jox ko muskalaf boo ko joxee incha allah yàlla dina la dimbali yàlla dina la taxaw Abdoulaye da jàpp yoonu tukki. waaw nee na ci biir foofu nga nekk am na ñu lay bàyyi xel mais am na yoon boo xamante ne beneen yoon buy taxaw ci biir yoonu tukki boobu. nee na mu taxawal yoon bu ànd ak teraanga ànd ak xeewal génneel ma jël treize jeunes nga saraxe ko ndax mbirum terrain mbala mbirum suuf di ko xëccoo góor pour nga am ca ndam dangay génne quatorze gros quatorze petit kola nga saraxe ko ndax dina am coow loo xam ne boo moytul yéeg ak wàcc di nga ko di nga ko di nga ko dund nee nekk dëkk tubaab ak dangay jëflante ak ay tubaab ndax sa wërsëg la nekk sëñ bi mais seet nee na incha allahu rabbi sa tur dina gën a yëkkati foofu nga nekk ci réewum tugal mais këyit booy too dina xaw a dëgër mais laaku la tëri benn bool toggalu ko nga taaj ko moo xam këyit boo xam da koy toppatoo pour sa diggante yàgg bi mais dina sotti te diñ ko jot mais moytu tubaab jox la alalam pour ngeen sëy yàgg moom sa boo moytuwul di nga am jabar tubaab sëñ bi neen tubaab bi mooy intéressé wu ci yow ba yëkkati alal jox la ko neen nga di koy bàyyi xel à tout moment day am nee na mu taxawalaat na mu taxawalaat mbég seet neen ku am ñaan waajur nga mais ndox mu sedd de ku génnee lu bari nga di koy saraxe dégg nga allo ndox mi sedd de ko génnee nga di koy faral di saraxe boo koy génnee di nga ree di nga kontaan Abdoulaye li lay jàppale dëgg mooy da nga am ñaani waajur nee na nga dalal sa xel di nga ree di nga kontaan mais fiir daf la xaw a sonal day jékki-jékki rek fiir wala sa xel daal daw ci leen mais del dalal sa xel ci kaw jàmm ci kaw ndam seet ne say njaboot da góor ñi ñoo nar ëpp jigéen ñi mu taxawal ne kuy kontaan tey doon avancement di nga ko am këyit booy toppatoo taxawaat na sa wàllu seet del génnee waaw di génne ananas nga di koy faral di saraxe pour yàlla leeralal sa yoon leeralal say mbir nag gis naa di nga jóge ci place ci place te place ba nga jëm mën na gën bii nga nekk te jàmm la mbég la xéewal la teraanga la sëñ Abdoulaye mais wutal ma basin bu weex tàll ñu wut ci onze mètres basin bu di doon baax na nga kilifa boo xam ne day jiite day jiite ay nit ci julli boo ko defee yàlla dina taxaw gën a ibbi sa wërsëg leeral sa yoon ndax gis naa alal ju bari joo xam ne war na dugg sa loxo te day ñëw ci kàttan suñu borom dégg nga mais affaire immobilière mbirum jënd kër tabax di nga ko di nga ci yëngatu te dina la may àll sëñ bi amal jàmm te dund te wér ku baax. ay ci jërëjëf Yaram mën nga jël numéro bi su ko defee nga woote ci yéen ñi nga xamante ni yéen a am lu urgent euh, mën ngeen a jël numéro bi euh, parce que wax naa leen ko sànq li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li euh, ñuy gis commentaire yi képp koo xam ne nii da am lu urgent mën nga woote ci numéro bi su ko defee dinañ la kaleel rendez-vous après waxtaan wi soxna Mariama yow lay njëkk a gisanteer yow lay njëkka a waaye fii nii tamit ah ngeen comprendre benn affaire ñun amuñu intérêt di jël kii wala ñuy jël kële wala ñuy jël kële képp ku ci sa wërsëg nekk incha allah rabbi di nga jokkoo ak moom parce que li muy def aussi itam euh, fayeekoo ci dara c'est gratuit donc foofu euh, yéen ñi commentaire laay waxal ngeen bàyyi seen commentaire yi ngeen di commentaire donc amul ñu pour ségéree waaw dañuy jël rek ci liste bi lañ ko yemale képp ku ci am lu yàkkamti na mën nga jël numéro bi 77 la 060 43 10 77 43 10 bu leen neexee nii nii nii ñuy waxe ak yéen mën ngeen a woote bu dee yaa ngi bitim réew mën nga woote boo wootee incha allah rabbi dinañ la caler rendez-vous ginnaaw waxtaan wi dina la jël di nga bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la njëkk a mais képp ku sa sens nekk ci live bi incha allah rabbi dinañ la dugal amul góor amul jigéen des fois ñu commentaire jigéen ñi rek ngay ëpp looy jël mais te xanaa kenn du nu ma jëloo góor ñi am déet waaw kon mi ngi noonu kon ku ci sa wërsëg nekk rek dañ lay jël nga dugg waaw mais ku ci am lu yàkkamti nag bu la neexee mën nga woote boo wootee incha allah rabi dinañ la caler rendez-vous nu mu gën a gaawee ginnaaw waxtaan wi après soxna Mariama si dina la jël su ko defee mu mën a waxtaan ak yow ñu def nii daal di xool euh, ñeneen euh, ci ñi nga xamante ni ñi ngi fii depuis boobu ba léegi ñu xool leen salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. ñu ngi lay delloo ziar bu baax soxna si maa ngi sant bu baax a baax alhamdulilah doo yëkkati kàddu gi tuuti ah? Ah, Adama allo Adama Adama Sissoko 39 ans waaw aca Adama bisimilah. asalaamaaleykum. Hmm. asalaamaaleykum Adama baal ma yëkkati kàddu ngi lay ziar baal ma yëkkati kàddu yi ñaata la. waaw waaw yi boo takkee écouteur yi dindi ko. 49 waaw. borom 39 ans. ne la xol bu rafet yoon nga nee na sa xol dafa rafet nee na dina nga dalal sa xel seet nee na aadama di nga nekk ci ay tubaab liggéey ak ay tubaab di jëflante ñoom ci kàttanu suñu borom de nga bu fekkee dem nga réewu tubaab foofu sa wërsëg nekk nag bu nekkee demagoo génneel sarax pour a jàpp yoon daal dem dégg yaa ngi réewu tubaab sa wërsëg moo nekk réewu tubaab ne damay gis mën nga jëflante ak ay tubaab ba am ci lu yaatoo yaatu ci kàttanu suñu borom mais dangay bari ay problème dangay bari ay jafe-jafe yoo xamante ne mën nga ko di dund foofu ci dëkku tubaab mais jàppal jafe-jafe yi ab jàpp ndala ciy tegu mu taxawal ndam taxawal mbég dangay fexe ngay génne cere bu am laalo nga def ci meew nga tàj ko di ko jox xale loolooy sa saraxu tuub nee na boo ko dee def rek rawaane dañ lay may jàmm te ba pare bi day dox ba li lay yàqal dangay gis day bàyyi incha allah dégg si soxobaan yi allo sànni jëndul fii bi. allo allo. allo oui sama ligne bee dawal. Ah, nee na dina baax sama bi moo baax di nga kontaan di nga toog ba sant yàlla wërsëg day ñëw mais loo am mën nga ko bokk ak nit te ñi ngay defal lu baax.